tey kaset yëpp dañu kontaan bu kaset kontaanee kontaan naa la jeunesse de Fatick tey tey ma am lu rëy mooy ma am grand frère de commerce qui est un ami qui est un frère ancien de commerce actuel ministre de def un excellent mais ñëpp gis nañ bi mu jëlee le département du tourisme ce qu'il a fait c'est exceptionnel Je remercie mes amis aussi maire et député Amath Mouri Diallo le maire de Vélingara du monde 2002 Coupe d'Afrique 2002 la star internationale double ballon d'or deux fois meilleur footballeur africain qui jouait dans l'une des, dans l'une des plus grandes équipes du championnat d'Angleterre Liverpool est là mon ami mon frère est là. Diouf mu ne dama que déwén nous ñu fi ñëw ñu jouer ci final terrain synthétique Inch'Allah, nous allons eggale stade bi parce que stade avec deux tribunes avec un terrain multifonctionnel xoolee la jeunesse de Tassette et ici ils sont aux anges Il y a des écuries, yi papa des écuries, kër yi ñoom ñëpp c'est ça le Sénégal mu tafeeg jour bi nga xamante ni président Macky Sall président Abdoulaye Wade dem di papaam dem di ko seen ko fale di ko ñaanal donc tey Sénégal il y'a benn sentiment boo xamante ni de paix vraiment amoon une vieille doléance moi lan dañu am un excellent programme yi mu PACASEN urbain 130 milliards muy financé 123 communes yi un excellent programme Et d'autres communes qui ne bénéficient pas du PACASEN saisir à travers les gouverneurs, à travers une tournée exceptionnelle que notre ministre Omar, Gueye a fait dans les 14 régions du Sénégal. Je remercie monsieur le maire. maire Tassat bi nga xam ne tey moo ma jox opportunité ma ñëw fii euh, saparante ñoo xam ne peut-être qu'ils m'ont supporté pendant toute leur vie te nous ma gis avenir du Sénégal nii la si quartier yu mel nii laa jógee nawetaan laa daan football pour gën leen wax ne rek ni leen mën nañu jóge fii ba pare réussir suba war a sol mayo équipe nationale football foo la mais foo bu ànd ak fulla ak fayda la pour ñëw leen encourager leen wan ne leen ñoo ngi seen gannaaw bàyyiwul leen terrain bi maa ngi waxtaan ak maire bi bëgg na ko def gazon synthétique pour xale yi gën mën wane seen bopp parce que macha allah talent bi nu am ñoo ngi koy wane fii mais su fekkee terrain bu gën baax la tamit si lañ ngi gën mën wane seen bopp pour wane ne rek man jeunesse Sénégal moom ñor encourager les euh, nekk ak ñoom ba pourquoi pas les donner aussi ay idée nan la ñu mën def ba Sénégal moom grenier ou football la tey génération bu ñëw rek beneen bu baax day gën a ndax bu 86 après 86 90 après 90 2002 yooyu yëpp jaar nañ fi ba 2019 du jour moo yomb infrastructure moo nu jàppee li may wax rek moo di avenir du Sénégal moom footballeur duñ ko mos ñàkk mais nag nan la ñuy def ba nga xam lii gën a am solo Sénégal par exemple euh, li nga xam ne tey jii moom mooy euh, actualité bi moo di championnat Sénégal commencé gul par exemple nan la ñuy def ba mu commencé et xale yi bëgg nañu tey jii dem di jouer championnat kon nag buñ leen yàqal li ñu bëgg def seen rêve moo di football nan la ñuy def bopp euh, championnat Sénégal commencé xale yi mën football mën wane seen bopp mën avancé. Et il nous appartient en tant qu'élu local euh, d'accompagner la jeunesse de Tasset, la jeunesse Le jeu est l'expression de l'âme, comme on dit, de la société. Et les jeunes de Tasset euh, se comportent de manière euh, exemplaire. Donc je voulais féliciter les maires de Tasset pour l'initiative et féliciter les deux équipes pour leur fair et leur esprit de euh, merci, euh, de merci d'avoir invité ici à ta tête.